muxtaar jërë ngeen jëf mbokki xibaar ñu door ko ak tiis wi nga xam ne nag moom la koy ubbee muy tànk woo xamante ni nag daal dina ñàkk euh, bakkenam ni ki tey mi ngi am ci lu toll euh, ci fukk ak ñaar jàpp fukk ak ñett ci ay at jàppale ne ab ndaamaar moom moo ko rek daal di euh, tëll fi jege lool sëkk yu xal xuus xale boobe àndoon ak nga xam ne nag moom moo di waajuram doon rek gàmmu si ma nga jóge fu ñu naan nag géejawaay rawatina quartier wu ñu naan Euh, euh, waxi naan euh, Nimzaat jamono yi nag chauffeur boobu leen daamaar jàpp leen ne dafa rek daal di daw waaye way takk der yi ñu ngi topp ci ginnaawam ngi rek daal di koy teg loxo. aywa ñu woyal li nga xam ne nag moom moo di euh, xibaar yi ba tey jàppale ne nag ci euh, mawlit wile euh, gendarmerie nationale daal nay amal liggéey bu am solo bu ko defee itam lépp lu soxal wàllug dem ak dikk du tagga tembe fii ci dëkkub Seydi Hadj Malick lu di mel daañu ko biral ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre wi nga xam ne nag moom la ñu nekk bu 18 heures jotee mu mel ne nag capitaine Mouhamadou Souka Diouf commandant bu compagnie bu gendarmerie bu diwaan bu Thiès di sàkku nga xam ne nag ñoom ñoo di euh, chauffeur si ñu daal di dëppoog loolee nga xam ne moom la ñu tëral ñu teewlu ay kàddoom carte bi ñu leen tegal dañu gis ne Tivaouane moo nekk ci digg bi juróom yoon ñoo leen di permetre ngeen dem Tivaouane muy route nationale numéro deux route nationale numéro trois yi nga xam ne benn bi ngi tudd Ila ba benn bi tudd autoroute de l'avenir route départementale numéro sept cent deux ak route départementale numéro sept cent taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo jógee Dakar ak di ko wër mën nañ jaaree bu dem Tivaouane route nationale numéro 2 jëlee ko Pout Thiès dugub biir Tivaouane mën nañ tamit jëlee ko yoon ni autoroute de l' avenir ñëw jaar si autoroute ila Touba génnee yooni Sindia bi jaar Thiès pour dugg biir Tivaouane ba léegi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee Dakar mën nañ jaar autoroute ila Touba continuer ko ba sortie Touba bu yeggee foofu mën nañ jël ñaari voies def Touba Toul dem directement Tivaouane lu bees ci atum ren bi mooy yoon bi jaar Daaru Alpha Pambal Tivaouane dañ ko tëj ci topp ndigali arrêté préfectoral département bu Tivaouane dafa am liggéey yu am solo yu fa nguur gi nekk di def pour ñooñu mën nañ jaar ancienne route des Niayes dem dem directement Mboro jël seen ndeyjoor dem route départementale numéro 702 dem dugg biir Tivaouane bu ngeen jëlee taalibe yi jógee Tambacounda Kaolack ak dëkk yu ko wër mën nañ jaar route nationale numéro 3 jaaree ji Diourbel ñëw ba Xombol jaari route départementale numéro 708 continuer ko génne si Tivaouane ci ñooñu tamit mën nañ jaar yoon yi Bambey bi jël autoroute Ila Touba génnee Touba jaar ci ñaari yoon yi nga xam ne moo la yóbbu Ndoukoumane dugub biir Tivaouane tali bi nga xam ne ñoom ñoo jógee Podor dem Saint-Louis jaar si Louga mën nañ jaar yoon yi route nationale numéro 2 dugg si biir Kébémer jaar Mexe yegg si biir Tivaouane ngir kaaraange ñi ñëw gàmmu gendarmerie nationale deg na benn dispositif sécuritaire ci yoon yëpp teg nañ tamit benn dispositif pour gunge ñi nga xam ne ñoom ñoo jël train yi ci diggante Diamniadio ak Tivaouane wol mal ni nag wàllu euh, dem ak dikk euh, dal di fi nemmeeku accident nag euh, du sabab li tax na itam ñuy woolu li nga xam ne nag moom moo di sofoor si ñu daw ndànk dal ndànk bu ko defee ñu daal di fi nemmeeku zéro accident bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu ANASER moom itam daal nay janoo ak xalif général kullu Tidiane daal di rek xirtal ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñëw file ñu mën fay ñëw ci li nga xam ne nag moom moo di seen teeg bakken ñu teewlu ay kàddoom may di sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu sëriñ bi donc am naa chance gis ko di ko ñaanal yàlla yàlla na koy yàlla euh, may wér-gu-yaram ak gudd fan ak euh, mboolemu njaboot El Hadj Malick Sy vraiment euh, chance la ñu am gis ko di ko gërëm di ko sant aussi ci dalal bu mu ñu dalal donc man dama ñëw ak sama équipe ANASER ñëw fi aussi ci turu sama ministre mooy El Malick Ndiaye mooy moo yore lépp lu jëm ci infrastructure ak transport di ko nuyu bu baax di nuyu aussi di sargal euh, le président de la république son excellence Bassirou Diomaye jaxaar fay tey dañu ñëwoon ci dëkk bu tedd bi euh, pour sàkku ñaan donc ñaan ci euh, gàmm bi nga xam ne moom la ñu jëm ci fan yi di ñaan yàlla surtout sëriñ bi ñaan yàlla mu am acci bon du am ay accident yu bari duñ naan zéro accident donc gis ngeen fan yi accident yi bari na ci réew mi donc di ñaan yàlla rek ñi nga xam ne ñoo ngi jëfloog ak oto yi surtout chauffeurs yi ñu def ndànk ci tali bi donc amul dara luñ fi yàkkanti leen ñaan yàlla vraiment nga xam ne dañu war a ñëw ci gàmm bi ci jàmm ñibbisi si jàmm ak salaam donc loolu laa leen di ñaax jël ay mesures de de de prudence ci tali bi surtout côté euh, téléphone yi ak excès de vitesse aussi ñu def ndànk bu fekkee ne dañu sond ñu noppalu loolu lu am solo la c'est des mesures yoo xamante ne buñ ko jëlee du ma wax ne accident du am de mais mën na ko wàññi lu bari bari bari vraiment di leen waaw waaw surtout respecter code de la route bi aussi lu am solo la donc buñ ko respecter vraiment euh, dina wàññi lu bari accident yi donc di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yéen ñëpp euh, gàmmu jàmm ak salaam nit ñi ñu dem ci jàmm ñibbisi si jàmm ak salaam dem ci jàmm ñëw ci jàmm waaye jàppale de nag euh, taalibe yi ñu ngi jóge fu nekk ci àdduna wërngal këpp ngi rek daal di fekkee li nga xam ne euh, moom moo di euh, guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim bu takku mi ngi rek fii ci Tiwaawan atum itam li nga xam ne rek moom moo di aljuma gu mujj laata gàmm gi doon lu am solo bëri na itam ci ñoo xamante ni daal nañ koy teewee fii ci Tiwaawan ñu teewlu reportage. Tiwaawan. ay junni junni taalibe di bàyyi ko fépp ngi rek daal di li nga xam ne nag moom moo di ak gàmm gi comme ndaw li le jóge ba réew bu ñu naan Mauritanie. Nouakchott ñëw fii ci gàmm gi ci bisu yonent bi ngir yàlla ak barke Seex Seydi El Hadj Malick mi ko woote di suñu sëriñ di suñu wasila nga xam ne tey bu nekk gàmm xel yëpp dem fii ci Tiwaawan dem ci Seex Seydi El Hadj Malick ñu ñëw nag fekk ci suñuy waajur ñu nekk ci ñu di ci sant yàlla bu baax. ngir yàlla ak bis beeg jëmmi Seydina Muhammad mi nga xam ne moo ko waral chaque année ñu jógee Nouakchott ñëw fii ci Tivaouane di sàkku siiw ci barke Cheikh Seydil Hadji Malick buñ ci ñëwee moom di leen yëg leneen waxuma ñëw gi sax mais préparation bi bu ñu ñëw rek dañuy yëg leneen te yàlla ak ñuy suturaal ba chaque année saa bu ko préparé yàlla suturaal ñu ñëw ci jàmm delloo ci jàmm. taalibe yi di bàyyeekoo fu nekk atum ren itam bés wu ni mel am solo lool ndax moom mooy aljuma bu mujj laata gàmmu nekk itam. burdu bu mujj taalibe yile am ak mbégte di ko dund. xanaa yëg euh, bànneex ak mbégte waaw di am contentement bu baax a baax a baax a baax tamit aussi tamit di profité di rafetlu yéen waa TFM seen liggéey di ko rafetlu bu baax a baax a baax waaw chaque année ngeen koy taxawoo di ko filmer di ko xama ñi nga xamante duñu jote ñëw Tiwaawan di ko am en direct. kooku ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax di leen ñaan yàlla yokkate ca kanam rek ci barke yonent bi di am tamit contentement bu rëy ci bis bi ndax bis bi moom ki tax ñu daje fi muy yonent bi gën di mbindeef jar na lu ne. bu bu doy bu jéggi doyoo ndax euh, ñun danoo judd rek fekk suñuy baay nekk si yoon kon ñun buñ juddoo juddoog moom bis bu tool nii lu tool nii bisu yonent bi. ñu ñëw fii fas yéene ko màggal ndax sëñ bi moo ko woote woon kon boog buñ fi ñëwee yàlla dogal ñu teew fi duñ def lu dul kontaan ak mbégte mbégte rek la ñuy yëg. kontaan ci sunu maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu moom mi nga xam moo ñu fàggul lii ndax yaakaar naa ñi bind ci yonent bi bari na liñ wax ci yonent bi bari na waaye damay wax ne Seydi Hadji Malick référence la. ndax bokk ci borom xam-xam yi nga xam ni dañuy suul seen moroom boroom xam-xam wala ñu koy añaane wala ñu koy fiire te loolu li ciy firnde mooy bi may firi burdu barki démb ci septième buntu bi dama wax ne Mouhamad al Busiri jàng nañ ko mu ngi tudd Mouhamad ibnu Saïd ibnu Hamad ibnu Sanhaan as-Sanha as-Sanhaji wala al waaye xam gin ko xam gannaaw yàlla Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala moo tax Tivaouane di dëkkub ñaan dëkku sell woo xamante ni itam dina boole jullitu yàlla yi saa sune ne ñuy amal gàmmu. fi ci ci Tivaouane itam atum ren xam ngeen ne daañu fi nemmeeku li nga xam ne nag moom moo di euh, remise euh, symbolique waaye itam euh, ci privé li nga xam ne nag moom moo di caabik juma ji jumaa jooje itam xam ngeen ne liñ ci sóob ci ay koppar ëpp na ñaar fukki ay milliards di dem ñu dikkaat ci li nga xam ne nag moom di solo si mu am ci tundu Afrique. juma ju ji ci Tiwaawoon Seydil Xaaji Malick moo ko naal rëdd ko sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh tàmbali woon liggéey bi sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa général di Tijaan àggal yéene maamam ji Seydil Xaaji Malick Sy. juma ji de euh, ci taarix euh, maam El Hadj Malick mi ngi ko sos 1904 tombeek euh, jamono bi maam Abdou Aziz Gane àdduna 1904 tombeek aussi at bi mu sosee Jaksaaw ndax bi mu demee màkk dafa ñaanoon borom lu baree bare bëri rawatina nag ay néegu yàlla yu yu baaw yu yu saawaan ko moo di yu law ci biir réew mi te loolu ñaan gu nangu la donc 1904 la ko sos waaye dafa laaj autorisation du pouvoir colonial parce que li may toujours ku war a lijjanti waroo lëj kilifa nag moom toujours dafa war a lépp leer moom nag maa laaj Malick maison de verre la biiram mooy biteem moo tax mu laaj autorisation tabax jàkka ji bi ñu demee bi mu génnee àdduna maam sëñ Babacar wutu ko fi ànd ak maam Mansour maam Abdou maam Habib ak njaboot gépp continuer liggéey boobu seen bàyyi bàyyi leen 1957 moom Abdou ñëw ci xilaafa gi mais moom 1979 la indiwaat li ñaan extension pour ñu gën ko jag-jagaatal gën ko yaatal mooy première mosquée bi ñu gën a yokk extension bi bi ñëwee nag 1900 euh, 2021 ci la ñu relancé waa travaux yi waaye lu jiitu dernier buddu 2019 ci la xalif général Tijaan sëñ Babacar Sy Mansour annoncé ne ah am na ndigal pour àggale waat yokk ko maanaam jumaa ji mu mel goog jamono. fa ko maamam bàyyi woon ay bàyyam bàyyi ko moom mu continuer liggéey bi. mu nekk jumaa ju yànji lool méngoo ak jamono ñaar fukki milliards ak ñett la ñu jàppoon nii moo koy tabax. Euh, xayma nañ ko ci ñetti euh, budget euh, prévisionnel vingt trois milliards la woon mais suñ jàppee ni treize milliards daal moo jógee ci mbokk mbokk benn benn yi ak yenn institutionnels yi ak taalibe yi. li ñu dugal ci Pins ak ci Orange Money ci Wave ak ci compte bancaire. kii di Moulay Abdoul Aziz Diop nag di membre ci comité scientifique Hadratul Malikiya nekk itam membre ci comité pilotage travaux grande mosquée bu woon xamal nañu ni nag caab yi dinañu ko jox xarif général di Tidiane samedi bi di fukki fan ak ñeent ci weeru septembre. suba ñu war a jébbal caabi ji ndax jébbal bi remise symbolique la maanaam du cérémonie. ndax comme dañoo liggéeyaloon Jamaatu Nuur liggéey bi dem na ba ak ba àgg alhamdulilah c'est lépp ci ñàkku taalibe yi ak ndimbalu suñu borom ak ñaanu sëriñ bi ak taxawaay yu mat ñu ne nañ ko jébbalaat moom caabi ji ak njaboot gi suñ ko jébbalee ba pare nag moom dina dajalee njaboot gi ci waxtu mu ko soobee waxtaan ak ñoom xool nag ndax néegu yàlla la ban waxtu ak ban weer wala ban bis ak naka lañ koy ubbee loolu sëriñ bi moo am sañ-sañ bi moo am kàddu gi sa su ci jotee tamit dina ak dajale Sénégal yëpp jaaraat fi ñu jaaroon wax leen ne ah lii ngeen dugaloon seen ñàkk rek moo agsi fi sëriñ bi nag bëgg na ubbi jumaa ji mais dañuy wax laal ci gàmmu gi jumaa ji ubbi wuñ ko jullee guñ ko remise des clés symbolique la en privé sax lay doon diggante Jamaatu Nuur ak sëñ Babacar Sy Mansour ak njaboot gi ñu ko seqal rek loolu moom mooy solo suba bi. communauté Tidiane bi nag nekk nag ñu yàkkamti xam ban date la xalif bi di joxe ngir ñu mën a ubbi jumaa ji waaye nag balaa loolu xalifa bi dina waxtaan nag aki mbokkam ñu daal di jàpp dat bi nga xam ni ci lañuy ñuy fas yéene ubbi jumaa ji. lu taw da xam jarta yàkkamti Pape Thioune mu mel ni nag euh, jullit yàlla yëpp yàkkamti nañu li nga xam ne nag euh, moom moo di ubbite gi ñu wax ci leneen maa ngi leen ko doon junju euh, jàppale ne nag service bu commerce wu Tiwaawan daal di teg lu toll ci juróom benn ci ay toni ñam yoo xamante ni nag baaxul askan wi daal di koy jëfandikoo lu soxol itam carotte gi dégg ngeen coow lu ci am ndax itam kilogramme bi mi ngi toll ci ñeenti téeméer suñu ay ndaw doxantu woon nañu ci marché central bu Tiwaawan Cheikh Anta Diop ak c'est le service service commerce bu département bu Tivaouane nag tabb ab brigade ay agent di wër ci marché bi ngir xool nag ndax njëg yi topp nañ ko amul benn gàllankoor waaye dañoo gis ne yenn ci ay commerçant de dañoo dugal ci marché bi ay carottes te carotte jooju dañ bi aussi état bi mi ngi jël ay mesures pour que dugal carotte bi nga xam ne moo war a jóge bitim réew lu mu gaaw ko tege yoon ko mu ñoo xam ne fii ci Tivaouane dañuy dem di emprunter yoo xam ne c'est des voies illégales dugal carotte boobu di ko jaayee sac bi à quarante francs moo waral loolu nga dégg fan yi bi ñu ko yëgee la ñuy dem nooto yebal suñuy équipe ñu saisir fa lu ëpp trois kilogrammes parce que ba ñu ñëw fekk na am loo xam ne jot nañ koo jaay mais lañ ci saisir mooy presque cent quarante du mos kilo yoo xam ne nii nag dañoo fekk ñu koy jaay prix bu jéggi dayoo Khadim Ndiaye mi nga xamante ne moom mooy directeur régional bu commerce bu Thiès moom mii de nee na lépp loo xamante ne teg nañu ko loxo ci ay produit dañu koy defaat ci marché bi mën koo jaay yoon nag moo ñu may bu ñu jàppee lu mel noonu ndax amuñu autorisation dugal ko fi dañuy ñëw fekk fi ñu ko soxlaa mooy loolu la tubaab di wax quand les nécessités de l'approvisionnement l'exigent et c'est le cas ñu dem yóbbu ko jaay ko consommateurs yi ci prix raisonnable boo xam ne nii à raison de vingt mille francs euh, le sac mu dikku ñu huit cent francs le kilogramme jaay ko ba mu jeex dugal ko ci keesu buur ñu xam ne donc askan wi lañ fi nekkal c'est pas normal ñu gàmmu jël ñu war a jàmm yàlla ñu jël di yéegal prix yi foo xam ne teguwul ci yoon en tout duñ ko nangu. agent yi dinañ wër ci marché bi fii ba gàmm gi di jeex nee nañu nag lu dañoo bëgg aar askan ci ñenn ñam yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay ci marché bi te lu ci bëri baaxul. ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca euh, Medina nañu ko defee woon ca Touba Mbacké noonu la ñu ko defee euh, fii ci euh, Tivaouane lu soxal itam wàllug cet-cetal ameel nañu ko fii dugg nañ ci yenn ci ay ruqurxaat yoo xamante ni nag fas yéene nañoo wëyal lu ni mel ci njiital ki nga xam ne moom moo di jiit bu bokk moomeel ga Bamba Fall ñu teewlu ay kàddoom. yàlla rek xam nga vacances citoyennes lañu organisé ñu def bis bu nee ñu nettuwaay benn quartier Medina lëmm organiser cours de vacance camp de vacances ay tournoi football tournoi basket da pare gérer ay activités éducatives loolu nag dañ ci boole nii màggal gi da cee dox kon nañ jël waa Médina yóbbu Touba ñu nettoyé bañ ko defee dem nañ alméeri Yoff ak alméeri Laayeen yi tey ñu ngi Tiwaawan te li tax mu neex ñi tey Ndiol Fouta daf ñu recevoir suñu baay boobu ñaanal ñu ñaanal réew mi ñaanal Médina ndaxte ku xam ma euh, Médina xam ne seen maam Sidi Hadj Malick moo ko tuddee Médina te ñoom dañ fa bëri doole lool sax moo tax ñu njëkki woon kër Maodo sox mu jox ñu ndigal ñu ñëw may gërëm ñëpp nag xale yi Medina yi bëri nañu fii ëpp nañu tey juróom-ñetti kaar ëpp ñeenti téeméeri nit ñu nettoyé zawiye bi nettoyé mbedd yi ko wër yëpp muy suñu participation ci gàmmu bi. këru diine bu xewlee ci Sénégal dañuy ñëw may la doole parce que tey Medina foofu lañ bëgg mu toll ci Sénégal bu ñu weesoo Medina Medina day nekk au service du peuple. te yaakaar naa ni neex na waa Médina neex na xale yi ndax bisu gàmmu comme bisu màggal day jafe nga gisante ak yenn sëriñ yi mu jafe nga ñëw dugg ci yenn xabru yi ay yenn lieu yi day xat loolu tey am nañu chance dugg nañu fu ne jot nañu ñaan yu ne te am nañu mbégte tamit sëñ bi ñaanal na Sénégal dal Ndakaaru dal te Médina dal tamit mu doonoon maire bu euh, Médina mbokk yi maa ngi leen ko doon junj euh, bi ñu door yi la jotaayu xibaar waxoon naa leen ne daañu dalal ki nga xam ne nag moom moo di euh, Khalifa Niang moom mooy secrétaire général bu COSCAS chargé de l'organisation moom lañu ñu fas yéene bokkal li nga xam ne nag moom moo di jotaay wi maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Niang. Cheikh Tidiane ñu ngi lay delloo nuyoo di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mhm, ñu lay masawu di la ndokkeel également ci boobaak léegi coono yi nga xam ne yéen a ngi koy daj ci dëkk bu sell wi. ah ñu ngi lay delloo euh, masawu mais dañu wax ni coono amu ci ndax bu xol nangoo rek yaram du so du sonn. coono bànneex coono bànneex la mais alhamdulilah rabbil alamin mhm. bi ñu yàlla xiiree ñuy sonn ci li neex yàlla ak yonent bi ak joxoñu Cheikh Sidi Hadj Malick. mu mel itam yaay secrétaire général bu COSCAS euh, COSCAS ñàkkul ne ñi ñuy teewlu ci la jamono yàgg nañu ko dégg ginnaaw gëstu yoo xamante ni amal naa ko ci atum 1968 Euh, la ñu euh, daal di am xalaat bi 1969 ñu daal di koy taxawal lan moom moo taxoon. waaw Cheikh Tidiane Koskas 1968 dafa tombe woon a grève bu métti ci Sénégal muy ñaan grève semaine de fer mu tombee gàmmu Tiwaawan boobu Alxaaji Abdou Aziz Sy Dabakh radiyallahu taala anhu moo amoon euh, moo nekkoon xalifa général Tidiane wax Serigne Cheikh ni ko yebalal Serigne Abdou Aziz Sy mu dem ca Senghor mu wax ko ni ko gàmmu gaa ngi ñëw. pour service d'ordre bi fi daan yeble yebal Senghor wax sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine ni ko ren kat du ñu mën a yebal benn force de l'ordre bi ci Tivaouane ndax réew mi li fi xew li fi nekk ci force de l'ordre attanu ko mu ñëw wax ko sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh wax ko El Hadj Abdou mu ni ko fekk Senghor da ko ni est-ce que mënuñu ko fomm sëriñ Abdou Aziz Al Amine ni ko buñ ko dee fomm du man maa koy wax comme dañ ndaw laa ñu yëndi ma du ma la mën a tontu. waaye bu fekkoon ne maa ñëwal saa bopp dinaa la tontu njiba yónni nag bu mu demee naa leen ko wax. bi mu ñëwee mu wax ko Serigne Cheikh Serigne Cheikh ni ko demal nga ni ko guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du lu ñuy fomm ndax bis bu mu juddoo la ñu koy màggal lu ñuy fomm. demal nga wax ko ni ko sécurité wu doomu aadama yi nekkul ci loxo doomu aadama ci loxo yàlla na nekk ndax si yaxsimuka min annaas bu mu ko waxee loolu mu dellu si Senghor woowaat ko ni ko dinaa lay yónnee fukki garde ndax loolu laa man def ko symbolique ba mu ñëwee wax ko Serigne Cheikh Serigne Cheikh ni ko fukki garde yooyu nañ ko jox alxaaji Abdou Sy baax ndax mooy suñu bàyyi di xalif général de Tidiane demal nga woo xale yi ngeen former benn comité ngeen organiser gàmmu gi ndax force de yi ay góor ay góor a leen jël ay jigéen a leen jur. Uh-huh. ni euh, loolu moo tax euh, sos lan mooy seen ay mission waaw bi ñu ko te xalaat bi génn 68 71 71 personnes ñoo organiser gàmmu 68. sëriñ Cheikh di ñibbi Dakar wax sëriñ Abdou ko fekk leen ma Dakar bi ñu ko fekkee Dakar mu ni leen il faut que ñu wutal ko tur ku ñuy wax alxaaji Mansour Fall dëkkoon fii ci Tivaouane moo génne xalaatu COSCAS te mooy comité d'organisation au service du xalif Ababacar Sy muy COSCAS ñu ni ko mbooloo moo gis am na logo am na symbole sëriñ Cheikh jox leen alif lam mim mu am nag benn euh, euh, bit boo xam ne bi ñu ñëpp moom la ñuy muy foi discipline discrétion gàmmu deux mille deux mille gàmmu euh, soixante neuf soixante trois cent personnes ñoo ko organisé. Mhm. ñuy wax ay junni junni doomi aadama yoo xamante nii ñu ngi sóobu euh, ci lu soxal wàllu organisation bi leneen lu ñu nemmeeku nañu gàmmoo daaw ak ni ñu màggee ni ñu gàmmoo atum ren dafa wuute lu jëm ci wàllu innovation bokk na ci lu ngeen di faral di amal saa su ne. waaw ni ñu gàmmoo daaw ak ni ñuy gàmmoo ren du wuute parce que daaw bi ñuy gàmm dañoo gàmm ci buntu nawet. ren ñuy gàmm ci digg nawet xam ngeen ni palato télévision yëpp ci biir xorom bi lañ naan installé seeni palato ren ñu yéegal leen ci kaw parce que mbokk mu ñu naan Ablaye Ndiaye Ngalgu moom moom marbe esplanade bi yëpp ñu ni kon benn télévision ci communication ñeer communication di Abdou Hamid si mu ni kon nañu xool presse bi yëpp fu leen di losé ñu mën a def seeni plateau bàyyi xorom bi ak pèlerin yi mm. loolu mooy benn ci innovation bi ñaareel bi ñu ni euh, euh, réception bi dañ ko daan def 14h30 ñu xool ni tisbaar daan leen fekk di takkusaan fekk leen fa timis fekk leen fa te it jullit bu waxtu julli ji ne daa war a julli ji xalifa bi joxe ndigal ni nañu ko wàccee def ko 9h di matin balaa 13h jot ñëpp pare dellu seen i kër. ñëpp pare dellu seen i ay kër mu mel ni itam bëri na si ay activités yoo xamante ni daañu ci gis lu mel ni euh, koskas dinañ leen gis ci waañ yi dinañ leen gis également ci euh, euh, daal di jàppale doomi aadama yi lan moo. lu ni mel ak itam euh, pàcc-pàcc yooyu nan ngeen koy defee si wàllu organisation. Coskas daaw avant ñuy juddu tenue yi ma sol. ñu ngi ci woon 7000 membres. Mm. ren ñu commencé tenue yi. bi ñu koy commandé ñu commandé 9000 tenue. tenue yi bi mu ñëwee matul. kon donc ci sunu ma àgg nañu 10 000 tenue 10 000 personnes mais ci 10 000 personnes yooyu am nañu 28 29 sous commission. commission bi ci gën a rëy mi ngi ci 1000 membres muy ordre bi ci gën a néew mi ngi ci trois 300 membre commission bu ci nekk am na pàcc bu ñu la jagleel boo xam ne bii doo ja doo jaxasoog sa morom la la ngeen di liggéey kenn ku ci nekk am nga commi am nga président commission am nga rapporteur am nga vice président moo tax kenn du jaxasoog sa morom ci li nga war a def muy waañ yi cuisine muy social muy rawdu muy mosquée ba mu doon vingt huit sous commission. jaajëf amoon nañ yéene euh, wéyal li nga xam ne moom moo di waxtaan wi waaye mu mel ni euh, euh, waxtu wi moo ñu xaw a tënk ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa TFM yëpp di nuyu kilifa gi yu toujours di am mbégte jàkkaarloo yow mhm. ndax saa bu ñu xëyee ñu ngi jàkkaarloo ci matinal tabarakallahu yal na yàlla sàmm leen taxawu leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah barakaatu ñu di ko jaajëfal bu euh, baax a baax moom mi nga xam ne nag moom la ñu loon li nga xam ne euh, moom moo di euh, plateau bi wax naa leen ne moom mooy secrétaire général bu COSCAS chargé de l'organisation mi ngi wuyoo ci turu Khalifa Niang jaajëfal ko jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne itam yéen ñu doon teewlu ci seen télévision média wax naa leen ne ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi boobaak léegi gis ngeen yenn ci ay plateau yoo xamante ni ñu ngi koy amal fii ba ci sax li nga xam ne moom moo di ay documentaire la ko waral bokk na itam ci lenn bañ leen rëcc ci dëkkub Seydi Hadj Malick bi lee gan yaa ngi ñëw bu baax a baax ci lim bu takku burdu wi itam mu jënteel gi tey jile la ñu koy amal nopp noppalu ëllëg dimanche ñu amal li nga xam ne nag moom moo di gàmm guddik yonent bi sallallahu alayhi wa salaam ñu di ko màggal bu baax a baax jaajëfal leen jox leen ëllëg daje national bi waaye léegi-léegi di ngeen am ki nga xam ne rek moom moo di Ibrahima Kane ci xibaar yi ci euh, français jàngeen jëf mbokk yi des leen di wéy ak programme bu télévision Futurs Médias. أبدا عنا محمد